ak li nga xam ne moom lañ fi seede ñu jotali ko kon Cheikh Abdou ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci bis bi di la si jaajëfal di la ñaanal yàlla suñu borom euh, fegal la mbooleem pakk yépp ba soo yoon leer nga dox te dem te dara ba laa gàllankoor yaa ngi mbooleem koo xam ne yéen a ngi nekk ci liggéey bi te am nañ yaakaar ne noonu la ko suñu borom di defee wa isa qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura kon li ñu fi seede xam nañ ne njàng mu wér la mu sax ci xale yi du ay làmbatu du ay euh, pexe loolu nag ñun bu fekkente ne bu ñu fekkoon kii doon tari léegi muy soxna jaara bokkuñu li ñu bokk yit te ñu fekk yeneen xale di ko tari it lii ñu wax rek la ñuy wax ndax ñu donga fu dongaa jàpp nañ ne suñu suñu donga la jàpp nañ ne suñu moroomam donga la kon ñu ngi lay jot li cant ci mbooleem turu mbooleem mbokk yi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nga ko ak ñu nga xam ne seexal nga daara ñëpp di ñaan yàlla suñu borom xale yit gannaaw bu ñu leen ndokkalee ñoom itam jaajëfal leen yàlla suñu boroom def leen ay mag yu taxawul islaam bu ëllëgee di sant ay way waajuram seeni way waajur ñoom ñëpp ci nang gi bàyyi xale yi ak yow ba lii am ci ñoom it yàlla yàlla fay leen te dana leen fay sax euh, suñu borom subhaanahu wa taala ni ñu def tey jii ëllëg ca aljanna dana ko def ak ñoom ñi ak seeni way waajur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne bu ëllëgee sunu borom dana tàntante bu rafet taaral ko ba ba mënuñu ko misaal fii ci àddina ni mu mel dafa pëjum bu am solo ñëpp dañuy laaj naan waaw tànt bi ku fi sunu borom di bëgg a teral xanaa ñi ay malaayka leen xanaa ay anbiyaa leen ay rusul lañ ñu ne déedéet ñaari way jur seen doom makkaloon ci àddina ñoom na suñu borom di bëgg a teral fii ñu ne kon ana xale bi mokkal moom lu ko yàlla defal ñun loolu misaalam amul ci àddina dañ koy bàyyi ba ëllëg rek suñu borom fayal ko boppam kon nag jur yi war nañoo sant yàlla bu baax a baax a baax seen doom yi mokkal ndax ñoo leen may lool yi donte nag seen jëfa sax ndax bu ñu yóbbuutoon xale yi ci daara yi loolu du am waaye kon nag nit yóbbu na doomam ci daara te amul loolu yi kon ak sant gu wér a wér war na ci te sant nag jëf lay doon ni ko sëriñ Xaadim waxe sànq kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di sant ki nga xam ne moom lañ ko joxoon muy soxna jaara soxna njéeme di way juram yar ko yor bu rafet boo xam ne su ko maam say yoroon itam wóor nañu ne mënu cee def lu raw lii mu ci def su ci àggee kay ndax la ñuy wax ndax dana ci àgg su ko yemale wutoon ak yi doomam itam jàppe ko na neen di ko liggéeyloo guddeeg bëccëg itam jàpp naa ne lii am ci du am kon ma soxna Ndiémé ñu ngi lay jot jottali cant goo xam ne du sunu cant ñun kese waaye cantu bokk yépp la ci taxawaay bu am solo boobu di ñaan itam bépp mbokk boo xam ne yor na doom mu def noonu su defee incha allah li ñu bëgg ci njaboot lépp yàlla dana ko def kon nag ñu ngi baalu àq di jégalu te ñaanal mbokk mi nga xam ne moo fi bàyyi ko di sëriñ Moudou Abdoulahi Lo moom itam doon kenn ci mbokk yi yàlla na ko yàlla teeroo ak yërmaane ak njëgal ci barke alxuraan ji ñu fi jàng. ni ko eh, yonent bi misaale ni ko yàlla waxe dootoo xarab yàlla moo ko def man jëmb ji nag dama boole ci ñooña eh, njéeme mi ca ba woon ak ba tey man mi kenn déggiloo maa ngi du sama baay mooy jur wala magam sama mag ko yor kenn diggale mënu waaye nag mosunoo am benn yor yoor wala benn takkusaan waaye defee nañ tey ji moom rek ci ko yaakaar na tey xanaa rek ciwuma ko de léegi kon balaa kàddu yooyu ñëw ci sëñ Abdou Lahad loola laa xam ne bu ma ko waxut defu mooy seere cant gi nag moo ma ko waxut dama koo nëbbu te digaluñ nu ko ngërëm di nag moom kenn mënu ko kenn mënu koo dindi am na te kenn mënu koo dindi ndax nit bu fekkente ne gërëm nga ko te kenn mës dëgg dégg baatu safaan boo ko wax kooku gërëm nga ko kii dollik mooy kii may denc lu mën a xew kenn mës ta dégg ma ma ma ma euh, wax ko lu dul noonu wala ma teg ci euh, euh, kéem lu dul noonu waaye nag dama ko gërëm doom loolu tax sëñu ma jaate ak lu wees loolu li ci des nag wërsëg ma yàlla wërsëgale danaa ko seeree jullit yépp mu sama doom ji nga xam ne maam jaar dong ma ci doon moo koy tuddee tey ji sagal na ma siggil na ma def na rafet loo xam ne tey jii li fanaan sama xol bi mi ngi ciy door a mi ngi door a tàbbi waaye nag lépp lépp ngi nawa ndimbal li Pastef laa ci àndal ndax bi ndeyam naan man ka taabal jeenu boole waaye eh, njéemee ndeyam teguma ci lenn bañ defeen danaa ci teg leen boobu laa ko de jëlal ko defaral ko ay bagaasam yët ko njéeme bala mu fay jóge bañ xam ne yox naa ko te du ma ko diggalee ak dara loolu li ma wax la loo xam ne am na firnde maa ko def looy bagaasam jox ko ko sëñu ko ko jox maa ko ko jox waaye xanaa tey jii de sant naa moo ko moo ko joxe daam nag dama sëñ daam nag dama dama damaa fàttaliku mooy sama mag sama yaay naa ko da daam bàcc mi daam bàcc mi boo ak léegi kenn boolewul ndax mën noo mën waaye nag dara dox suñu diggante it lu nan war a ànde ku nag seen jataay bi yéen ñi ñëw ñëpp maa ngi leen di seereel tey jii def ngeen loo ñëw ngeen foo xam ne fi ak bokk ko lal lislaam a ko lal ngor a ko lal alxuraan maa leen koy seereel kenn ku ne ko yóbbaale ak bokk ko ngor lislaam alxuraan ñàkk kenn ku ne ko yóbbaale bàyyi laat boo demee ca mbokk ya ne leen wóor ne man sant naa te jataay bi sant koo xam te ne gii dootu dootu dootu dootu ci dolli lu dolle sant lii nag laa bëgg a wax ngeen ñëpp ngeen dëggal ko seen bopp ku dem yóbbaale ko Bathie Diakhaté tey jii am na ci alxuraan loo xam tey la ko mas am ah loolu doy na sëkk te mu xam ne moom maam mi ay mag la am loolu nag sant naa bu baax a baax sant nag boo ko seerul am na des waaw kon nag ne ma ñëpp seer góor ak jigéen maa ngi doon tey jii sant naa bu baax a baax a baax a baax a baax sant nag mënut a sant waaye nag. ci moom cant gépp nga xam moom lañ koy delloo mooy jëmm ji yal na la yàlla dëgëral yal na yàlla taxaw yal na la yàlla aar li nga yéene yal na nga dem ba tegal ci lépp sab loxo ci jàmm ak salaam ak xéwal yu baree bari ci barke borom tuba barke dëkk bi borom dëkk bi nee mag nee ma noonu la ñuy ñaane barke dëkk bi borom dëkk bi li nga bëgg lépp yàlla am na ko mën na ko barke Sëñ Tuuba jot na ci yal na la yàlla defal lépp bisu tey ji bis wéy nga dolli ko te dara bañ la euh, gaar wala ma dog la ci barkeb sëñ Tuubaa Mbàkke barkeb xasidaam yi barkeb doomam yi ak taalibeem yi mu gërëm barke borom tuba yéen ñëpp sant naa leen gërëm naa leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ah yàlla yàlla barkeel ah sëñ Mbàkke Sylla mu ngi noonu saaxibul Quraan mooy jox sëñ Modou Dem eh, sëñ Cheikh Say ah? sëñ ah, Galaay mooy jox noonu sëñ Galaay waaw kii mooy sëñ Galaay noo sant sëñ Galaay Njaay ah saahibul Qur'an yàlla yàlla barkeel sa dund barkeel seen dund. allah sëñ Galaay mi moom mën nañ cee seede ñoo ko doon téyel macha allah man ak loo tolloog ñeenti sëriñ daara wala juróom waaye alxuraan gi set na wécc wécc wécc mokkal gi wér na amul ay yàq te yàlla dimbali na ko tar na ko ba ba kaamil bi mat gagut yàqut incha allah kon nag yàlla yàlla sàmmal sa alxuraan def la mag mu am barke Cheikhul Khadim nga góorgóorlu bu baax comme ni ko suñu xaarim say waxee rek. ñu jàpp ci bu baax rek ci bàyyee ko sëriñ daara bi nit nag bu sonnee ci liggéey ba agsi fii lañ ko mën cër mooy bàyyee ko ko ba mu noppi ci moom ndax alxuraan ji mokk na waaye nag daa daa am lu koy téye suñ bàyyee si nga Abdoulaye Jaxate ak yi rek incha allah seen xol dana gën a sedd dana gën a sedd kon nag ngeen jàpp ci bu baax a baax a baax jàpp ci daara ji jàppale sëriñ daara bi ni ñu koy jàppalee mooy jox ko seeni gone bàyyee ko gone yi ak moom mu ciy xalaat di ci def di ci dindi bu soobee la seen xol dana sedd nu ngeen ko delloo njukkal delloo gi njukkal nag mooy bàyyee ko donga bi rek nit moo rek ñu koy jël waaw ngir téere bi rek ngeen ñaanal ko yàlla yàlla dolli ko ay résultat ba tey tamit maam say jaxate yaay mooy jur soxna jaar day jox bàyyi soxna maam say jaxate mooy kii mooy wéy juru soxna jaar mooy jox sëñ Abdou Lahad mii ab cadeau moo ko waajal boppam waaw macha allah yàlla yàlla barkeel xo ko mu ngi ci daara ji sama kër daara nga fa waaye bi mu feree dama ko koy jox rakkam it ma yëkkati ko jox ko ko moom mii mu taawloo doom ju góor yi tuddee ma ko kóllëre gi nekkul yàgg lool waaye lii lañ amoon ci moom xemmemte ba taxoon ñu takkook moom mu alxuraan ji nga xam ne len lu nekk daj na ko ci da def ko ci ñu yàgg ànd moom ci barab yu bari dajee alxuraan yu bari yoo xamante ni jongante da ci daan am mu di ci dem tàmbalee ko ci bi njëkk a def Lampal FM amaloon ko ca Ndakaaru Kolobaan keroog maa moom ñoo àndoon maa ko yóbbu woon mu def fa jëf bu rafet yoo xam ne mboolem koo xamante ni alxuraan nekkoon na sa jëmukaay bëgg nga keroog ñu jóge ca taxul mu yaafus ci ñu ñëw fii ci Jurbel def fi ndajem xasiida yàlla dogal mu gañe ko taxul mu yaafus si ñu delluwaat def fa ndajee moo xamante ni ndajeem olofal la mu jëlaat ko bi ñu ko defee ba tegale ko ba am juróom-ñett nit ñoo xam ne gañe nañ ko ci ndajeem xasida yi ñu dajalewaat juróom-ñett ñoon ñëpp keroog mu ñu yóbbaat ko fi yàlla dogal ci njàmbaaram mu góorgóorluwaat ba gañe ko kon da ngay xam ne jëmm ji naka jekk alxuraan ak xasida ak bëgg lu baax moo ne ci jëm ji te moom lay doxee te ñu ko xam ñëpp jël seeni doom andi ko ci daara xam nañ ko ci moom dongo yi muy jàngal moo leen gën a bëgg njàngale boo ko fekkee ci biir dongo yi danga koy jaawale ak dongo yi day nekk ci ñoom di foq ay baaram ak lu nekk mu di ko daj gone yi boo leen gisee sax ab laat da ngay gis ci ñoom te li gën a jafe ci ab sëriñu daara mooy loolu sëriñu daara bu ay ay dongaam ñeme bëriwul yor naa daara sama daara je kër ga donga yaa nga fa waaye su ma ne teel dugg xale dañuy làqatu waaye moom mii xale yi ñoo ay moroomam loolu nag dañ ko ñaan si moroom dafa ko cat yéen a jëm am na yi ci alxuraan ji suñu borom mottali ko barke Seexul Xadim yàgg nañ loolu nag waaye lii laa mës a xam ci moom waaw ñu ngi se ñu ngi jégalu baax nag jërëjëf waaw yàlla yàlla sàmm ko jàllale mboolem waajur yu góor yi nga xamante ni bii nii seen doom ñoo nekk ci daara ji di soññaat sun bopp di leen soññ bu baax a baax rek ndax dégg ngeen bu baax a baax kàddu yi nga xam ne si moo fi jot a jàll ci ni nu wax ci noonu la sun borom fonke waajur woo xam ne si am na doomam am xolu joxe ko ci daara ji te man ko faa bàyyi ba mu wattu alxuraan di loolu noonu tamit di lu am solo ndax nit tamit am na doom ba noppi te amul xolu yóbbu ko ci daara su ko amee tamit du am xolu bàyyi ko fa ndax dana yàkkamti ci moom te Serigne Touba tamit mi nga wax ne bu nu yàkkamti jàngkat yi bay wax ne laata tastaxil bir risqi is rabbul wara mutakaffilun risqa allazi yataallamu bu leen di yàkkamti wërsëgu ñi nga xamante ni bii nii dañoo nekk ci daara yi di jàng te ñoo ñooñu noonu nga xam te suñ borom ci jëm boppam nee na moo leen war warlul boppam wërsëgam man de ba may nekk tuut tànk sama baay damaa yóbbu ci daara ji ma nekk fa ginnaaw bi nag njëkk sama àlluwa di noppi sama baay jóge fi ma dem di jàng métier di jàng métier di jàng métier ba mu yàgg yàlla mi nga xamante ne bii moo namoon ci man ma bokk ci lim bi ñii mu wattu alxuraan liggéey bi neexatuma ma ne damay dellu ca daara ja ba ma delloo ca daara ja tamit bàyyi naa samay morom yoo xam ne ñu nga nekkoon ca liggéey ba di liggéey dellu naa ca daara ja ba yàlla dogal ma mokkal fa alxuraan ba bind ko fa ñeenti yoon bu ma fa jógee tamit bi ma ñëwee ñibbisiwaate delluwaat ci ab liggéey ba ña ma bàyyi woon ca liggéey ba man maa leen di dimbali kon loolu noonu day dëggal kàddu sëriñ boobu bii Serigne Touba wax ne bu leen yàkkamte wërsëgu gone yi te bu ngeen lijjantee seen bopp ba seeni mbir leer bu ëllëgee ba ngeen war a jàll te lijjanti woo leen seeni doom tamit dan leen di teye léegi ndax dégg ngeen ko ci tàmbali gi doom sax maa ngi leen koy maa ngi maa ngi sàcc ñoom di sàcc ñoom ba jamono ji bu ma ne leen dama leen di yóbbu daara ñu ne daara ji sañ Cheikh nekk sama baay sëñ Cheikh nekk laa bëgg a dem yéen tamit bu ngeen amee seen doom gëmloo ne dañoo war a nekk ci daara mooy tax boo leen leen fa yóbboo ñu man faa toog wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jégalu ci kàddu yi lool wa mawlana muhammadinil amin wala ali wa sahbi sawid radwani wa tamkin asalaamaaleykum wa ngi leen di nuyu ñëpp ku fi teew leen siyaare bu baax di leen balu àq te di leen bal di jaajëfal ñëpp ci teewaay bi di gën a sant nag bu baax a baax a baax Cheikh Abdou ci taxawaay bu am solo bi nga xamee si moom la taxawe ci téere bi téereb sunu borom subhanahu wa taala nekk taxawaay bu ama am solo boo xam ne bépp jullit bii ko ci war moo la war ndax nga mën a bokk ci wattu gi nga xam ne si moom la suñu baram wattu téere bi te am ñu koy jaarale si ñoom kon kenn ku nekk ameel nga si Abdou Lahad njukkal loo xam ne si am na tàmbali waaye amatub yamukaay rawatina nag euh, ñun way jur yi ci fi nga xam ne fi lay waxee ndax li Seexul Xadim radiyallahu anhu wax ni heure boo xamee ne dalal nañ xale bi euh, ci bismillahi rahmani rahim xale boobee day buddi nañ ab géttam ca sawara ak ñaari way juróom ya ak sëriñ ba ko doon jàngal waaye day kon bépp way jur nanga xam ne Cheikh Abdoul Ahad mii tey ah, fegal na la loo xam ne julli mayewu ko lenn loo xam ne si maye na ko amut waaye nag kon alhamdulilah Cheikh ab Ahad ñu lay sant bu baax a baax ci turu wayjuru ndongo yépp te fas yéene gën a dolli xale yi bu baax a baax a baax ñu gën cee jàpp ci ñu bàyyi xale yi ci daara ji ndax liñ koy faral di waxe ni wàcc rek walla mokkal rek am na solo de du lu kenn di wax rek ndax jaglak suñu borom la mën nañ koo wax ne jaglak suñu borom la waaye nag dafa des lu baree baree baree bare kon ni ko kilifa yi jiitu waxee xale bi nañ xam ne bu fekkonte ne dañ na def nañ ñeenti at wala def nañ juróomi at nañ fas yéenee defaat juróomi at ndax ci la ñuy door a mën a xam njariñu li nga xam ne moom lañ am ndax dafa mel ni ab léttal la rek buñ leen léttal waaye la nga xam ne mooy móot ma ma nga ca biir létt ba loole nag xam-xam moo koy maye nga mën caa jariñu ah, ginnaaw ndimbalul suñ borom kon ñi ngi jaajëfal ñëpp waaye nag di beral cant nag ba tey si ab Lahad nag cant goo xam ne si am na tàmbali waaye amatu bi yemukaay ndax taxawaayam ci ndonga yi comme ni ko ñi jiitu waxe kon lépp loo xam ne sii rek am na ci ndongo yi nañ xam ne nag du kiimaan ak góorgóorlu la moo ko ko may ñu koy beral nag suñ cantuk bopp boo xam ne si nañ ci di ko tudd di santaale ñi ñëpp comme ni ko kilifa yi jiitu waxee sëriñ daam jaxate cant goo xam ne am na tàmbali waaye amatu bu yemukaay ci xale bi nga xam ne si moom la yàlla dogal ñuy nekk way wayjuram ak soxna njéeme ak mbooleem waa kër gi ñëpp ndax day mel na ñëpp ci jàpp kenn koo xam ne si taxawoon na taxawaayu gàllankoor maam jaara rek kookee li mu bëgg du ko mën a am kon ñëpp la doo limee ñëpp laa lim ñëpp ba ci maam Jaara Faal mi ci mujj sax su taxawoon pour gàllankoor maam Jaara rek day mel ne lii du mën a am kon ñu ngi sant ñëpp te di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu wa rahmatullahi taala barakatu yéen ñi fi teew ñëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant kenn ku ne maa ngi koy jox wàccu waayam di leen nuyu di leen siyaar di leen baal àq di leen balu àq di ñaanal seen Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te wér ak waa kër Sëñ Tuubaa ñëpp ak waa kër Maam Cheikh Rafal yëpp kàddu yi nag du gudd xanaa kàddu yi sant ak gërëm rek nekk na kàddu yi waa koñ bi ñépp rek ñépp ku ci sa doom ne ci daara ji ak ku sa doom nekkagul ci daara ji itam yaa ngi nisar sa doom ñëw ci daara Cheikh Abdou Lahad ji ndax Cheikh Abdou kat sant nan ko bu baax sant nañ ko gërëm nañ ko ndax gis nañ am njàngaleem ñoo ngi koy sant di ko gërëm te di ko ñaanal nag fépp fu mu bëgg a yegg ci alxuraan jàmm ko suñu borom eggale xale yi nekk ci daara yi itam ñoo ngi leen di ñaanal ñoom itam kenn ku ci nekk bis bii nga taxawe ko barke sëriñ Tuubaa noo ngi sant di gërëm cant gi nag waa koñ bi ñëpp la ñëpp ñëpp ñëpp sant nañ si Abdou Lahad ndax Cheikh Abdou Lahad kat amuñu fayam ñun amuñu fayam de man soxna Ndeye Ndiaye Baye Fall nag maa ngi koy dégg sama bopp di ko dégg sëñ daara yëpp nag ndax man sëñ daara yi rek ñooy samay xarit man bu ñuy wax xarit daal man leen man sëñ daara yi man ñooy samay xarit man sëñ daara yi daal bëgg naa leen jànguma de waaye maa ngi ñaan ci kàttanu yàlla lépp lu ngeen am rek yàlla na ngeen ma ca sédd barke maam Cheikh Fall wa di sant sunu way jur yi waaye tàmbalee ko ci sunu way jur yu jigéen soxna Maymunatu Siise bintu Serigne Sam Cissé rahmatullahi alayhi ak mboolem ñu mbokkal Serigne Sam tàmbale ko ci soxna Jaxat Serigne Abo ak mboolem rakkam yi Serigne Saleh Serigne Ahmadou ba ci Serigne Seex mi doon tari ak euh, sëñ Moustapha ak mboolem ñi Serigne Sam njaboote waaye mboolem ku Serigne Hamsatu njaboote tàmbale ko ci soxna xarit di sunu mag waaye nag barab bi mënuñ ñu teew tey mënuñoo ñàkk sant Serigne Bamba Amar mi nga xam ne euh, barab bi ñu nekk ginnaaw yàlla ci loxoom la jaare ci liggéey bu rëy boo xam ne wax dëgg yàlla euh, kawe na lool njort ndax barab bu yaatoo nii bu ko neexoon ne dama la koy luye wala dama la koy jaay wala dama la koy nangam ak nangam yu bare bari te loolu lépp euh, fekk ko ci mu def ko rek li waj la xaasatan li wajhillah te itam yëmut ci loolu waaye bi bis bi kii wax dëgg yàlla yónni fi ay tiraangaam tey jii dem barki dem def na ko tey jii mu def ko xamal na rakkam ju mbokkal benn baay bu ma juumul ci ma ko waxee moo faato ci Kajoor moo war dem ci waaye yebal na benn dongaam bu mag mu ñëw jàppoon ab sëñ daaraam mu ñëw jàpp ci teyale bi ba ñëw na démb teyale ñëw tey ji teyale di sant nag waa daara ñëpp waaye dañuy sant nag donga yi akbar takbir ne leen allahu akbar waaw lii xol bu sedd la da ci kon yu waaw alhamdulilah bàyyi laat xol bee fees moom kay li tax ñu leen sant mooy kenn ñoom alhamdulilah waaw sëñ bi jërëjëf fii doo ngay yegg jaar nga fu ko gën a métti ndax ne ko sëñ ma lay doon waxee léegi coonee daara yi li jiitu ngay agsi fii ginnaaw bi yàlla suturaale ba nga nekk ci daara seen laaj yi góorgóorlu fa ba xam fa li nga war a xam lépp alxuraan rekk la soxal ba nga ca génnee nekkoo ci lenn du alxuraan barab yi nga jaar yépp ngir ubbi daara ngir fexe ba daara taxaw lu bari fekke nañ ko nekk nga sa kër nga dem ba daara ji xajatu ci kër gi ngay wur barab boo ko def suñ borom ma abal la fii ab barab nga nekk fa ba ndox mi di la fa fekk nga toog faak dongo yi taxul nga daw benn yoon abal la këram ca sura nga nekk fa ak dongo yi di leen jàngal ba suñ borom subhanahu wa taala fay la ci alquran Cheikh Bamba Amar bi nga xamante ni moom moo tabax kër gi ba mu àgg mu yëkkati ko jox la ko addi alquranul karim day wane ne kon liggéey alquran waaye alquran fay na la ndax bëriwaa na sëriñ daara yu nekk ci daara yi di jàngale lu jiitu ñuy am fuñ nekk sonn nañ lool te fañ amit ñoo kuddee seen bopp waaye jaayante gi nga jaayante alquran moo tax mbokkum jullit yëkkati barab bi defar ba mu yegg mu jox la ko addi alquran kon dong yi waru leen a sant ñoom ñoo la war a sant ndaxte li ëpp solo la suñ borom dogal mu féete ci yow ndax seen i wéjur dañoo dagg dañ laa daggaloo sa yitte ne la abdulaat daggal sa yitte toog fii jàngal leen ñu dong njëriñ bi suñu yitte ñoom ñii ku ci nekk soo xëyee da ngay xëy yor sab saak dem wuti loo am ne la bàyyilaat toogal ci daara ji dagg sa yitte téel ñu dongo yi dongo boo xam ne da ngay fekk ay wujuram def ca njëlbeen ja ci bopp bi loo xam ne alxuraan mën na caa bañ a xaj nga fexe ba raxas set wicc def ci alxuraan bañ man fee toog bu ma ko alxuraan yow dongo yi amul lenn loolu la war a sant ñoo la war a sant dañ lay ñaanal si borom dëgëral la gërëm la ba lépp loo xam ne am nga ko yéene ci alxuraan kan suñu borom mottali ko ñuy ñaan mboolem koo xam ne yaa ngi jotaay bii nga ñaan bàyyi laat mi suñu borom taxawu ko kàttanal ko ndaxte am na am na ci loo xam ne moom mënu ko wax ci làmmiñam dongo yi bu leen sant mukk ab laat defagun dara ndax fi nga jaar jaaroo fi nga li nga daj dajuñu ko xam nañ ci yow lu bëree bëree bëree bëri ba tabatay yaa ngi ni anduwoo benn yoon te alxuraan dina la gën a fay ba nga xam ne alxuraan fay na la ñu ngi jéggalu baax kon ñu xam ne dafa guddi te waxtu timis jot na xam naa ne kàddu yi mu ko nekk waaye ñu maase ñaanal ko ñu xam ne daal kon lii nañ lii mooy taxoon ñu teew fi suñ borom dogal na alhamdulilah tàmbali nañ ko ci jàmm yeggale ko jàmm ñu ñaan suñ borom mottali lépp barke Seexul Xadim mboolem ñu fi des na te mokkal gënu si borom dafa leen ñu mokkal ba ñoom ñu jël seen doom di mokkal alxuraan barke borom Tuubaa